pour ji doo ngeen ji doo ngeen de bala bala moo wàcc ah suma gaal ngi nii doo sax sib ci kaw laa nekk su suuf a ngi noonu ah. xaama jël ndaamali noonu la demee maa ngi nii inondation mooy loolu noonu la demee nag waaw mais dara yàlla ñu mu ngi fii quoi mooy loolu sama gaale li yëpp ndox la néegi mu ngi nii néeg yëpp ndox la di yëpp